xibaar yi ak Chérif Dia ñu tàmbale ko ak euh, tukki bi ci anam yu lewul lu toll ci fukki nit ak ñetti ay doomu réew Sénégal ñu nga faatu fële ca Mauritanie daanaka foofu lañ leen denc sax. danoo jëloon ay gaal bëggoon a dem ca Espagne far euh, am jafe-jafe ba kon lu toll ci fukk ak ñett ñàkk seen bakkan ni nga ko waxee fële ca Nouadhibou euh, ministère bi ñu dénk affaires étrangères ak doomu Sénégal ci bitim réew du ñu xamal ne kon daanaka sept cent soixante dix juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar doomu Sénégal bokkoon nañ ci lu ni ci ñoom nag tout tànk yi bari woon nañ fa ak soxna yi doon dem kon fële ci bitim réew fukk ak ñaar lott nañ ba jamono ji ñi ngi kër docteur foofa ca Nouadhibou ñu leen fay suivre fukk ak ñett yi ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ba mujj leen denc ndax mënees wutoon a indi seeni i néew fii ci Sénégal ginnaaw bi ñu gërëmee kilifay Mauritanie ci jàppandal gi nag état bu senegal euh, mi ngi rek euh, di fàttali ndaw ñi ne leen kon phénomène bi musiba lay jur euh, xool bu baax a baax laata ñu ci dugg te wajur yi tamit ñu bàyyi ci xel soxna si wàllum yoon euh, Chérif wax ci àtte bi diggante Ousmane Sonko ak état bu Sénégal ca cour de justice bu CEDEAO. tey jii lay am kon ca Abuja ñuy fàttali ni ubbi woon na sax semaine passée euh, dañ ko mujjoon renvoyé nag ndax amoon rek problème interprète ndax am na ko ca doon làkk kàllaamay portugais ba tax na kon ñu doon wut euh, lu ni mel tey jii nag kon àttekat bi dina sëgg ci ñaari ponk bokk na ci Ousmane Sonko min génne ci liste électorale yi ak parti bi di Pastef ñu daal di koy dissoudre fii ci Sénégal nag ba mu ubbee semaine bee passé diggante juge bi ngeen di gis nii ak Juan Branco kenn ci avocat yi Ousmane Sonko incident amoon na fa ba juge bi ne moom Branco dafa reew ñu wax it ci soxna si di Fall Fleur turam dëgg di Ndeye Fatou Fall moom it dañ ko àtt rek tey ji nga xamante ni kon moom mooy ca tribunal ba ak verdict ba ñu koy xaar maanaam délibéré bi euh, moom nag dañ ko toppee rek ne dafa divulguer illégalement ay correspondance di lettre boo xamante ni ca kaso ba mu nekk ci camp la ko bindee woon te ci doon yàq deru administration pénitentiaire ñu wax it ci wàllu politique ak Babacar Diop moom moo jiite parti bi di FDS les Guelwaar ah, ma nga nag ca Sédhiou amoon na sax jàppante digganteem ak ah, alkaati yi ndax rek dañ ne woon kon amul autorisation ngir demal ay rassemblement ki caravane comme ni ko yoon maye wante mujj na koo def ngir wut parrainage ñëw na moom it ci mbiram Sénat bi nga xamante ni kon jàpp na ni ah, Macky Sall coppite yam ci amal jaarul yoon ak mbiram Ousmane Sonko Ali Diamé docteur Babacar Diop FDS lay gelewaar moom nag visité na commune yu bëri nekk fii ci région bu Sédhiou. gis ngeen ni ma xale yi teeroo biir Sédhiou gis ngeen ni ma xale yi teeroo fell ci fawun gis ngeen ni ma xale yi teeroo fële ci Bunkiling fépp fu ñu jaar rek ñu wane mbégte. wane yaakaar boo xamante ni xale yi am nañ ko ci euh, ci ci gelawaar. moom nag mi ñawlu ni ñu dàkkee membre Sénat ci ay mois rek des ci élection présidentielle. jaay doole moo ci am jaay doole ndax la ndax Sénat wax na rek ni euh, direction générale des élections nañu jox Ousmane Sonko fiche loolu mais jarul ñu siy dàq waa Sénat dafa war a tax opposition bi yëpp taxaw ngir ñu xeex. Sénégal am élection yu libre. Babacar Diop di ne dafa bëgg nag Ousmane Sonko ñi daal koy dugalaat ci liste électorale yi. 2019 coup de force bi Macky saal defoon donc moom la moom la nar a defaat ci donc moo tax opposition bi dafa war a ànd mais élection yi jaar ci yoon mooy ñi war a bokk ñëpp ñu bàyyi leen ñu bokk. ci élection yi. moom nag mi xamle di ne gouvernement bi dafa échoué politique jeunesse som loolu moo waral sax mu daal di bëri immigration clandestine ci Sénégal. mais loolu lu moo ko waral mooy yaakaar moo jóge ci réew mi moo moo dee ci réew mi di dignité moo dee ci réew mi xale yi gëmatuñ seen dëkk ndax seen dëkk mënatu leen a jox yaakaar mënu leen a jox sax yaakaar dund moo tax xale yi di xaru ci géej gi di xaru ci géej gi loolu yaakaar naa ne war nañ ci taxaw ni ñu ci war a taxawee mooy ñu tabaxaat politique bu bees politique buy buy dekkal yaakaar. docteur Babacar Diop di ne dafa am programme spécial boo xamante ne da ko yéene région bu Sédhiou loolu nag pour gox bi mun a développer. alal Sénégal. région yi nekk ci Sénégal yëpp war nañ ciy gis seen bopp surtout li ñuy wax région périphérique kon man dama bëgg a jëlee Sédhiou ci ndóol yóbbu ko ci naataange. moom nag bu mu jeexalee conférence de presse am ci place de l' bu Sédhiou maire bu Kees nekk candidat ci élection présidentielle bu 2024 moom nag am na visite commissaire central bu Sédhiou. ñu wax euh, soxna naata ci euh, homme politique bi di Ahmed Diallo génne na benn téere ci weekend bi la doon def euh, publication bi tuddee ko Sénégal bu bees ñëw ci jafe-jafe yi nga xamante ni kon moo jàttang réew mi ba munt dem ci wàllu développement am na ci boo xamante tamit daal nee na mënees na koo def rek ngir la ñu dal ca indépendance ba léegi ci wàllu koom ak leneen loo xamante ni mën naa suqalem réew ñu joyante ko ñu déglu ko ci micro Cheikh Diop. ñi ñu fal ñoo ko moom parce que koo fi xatafal rek daa mel ni dëkk bi moomeelam la lu ko neex lay def ñu indi proposition yu bees indi xalaat yu bees proposé ko Sénégalais yi xam ni suñ ko defee suñ ko doxalee ah Sénégal dina jëm kanam. Hmm. moo tax ñu indi euh, li nga xamante ne peut-être mën na jaaxal ñenn ñi ci changement euh, profond yoo xamante ne dina ko indi waaye dafa nekk réflexion d'ensemble. donc képp ku lire téere bi ah bàyyi xel ci aspect yëpp xam ne réflexion la boo xamante ne ah, boo xamante ne ñu jàll ci wàllum jàng meeg njàngale mi ak ëllëg incha allah alliance euh, SAEMS CUSEMS ne dañuy bank seen i yoxoo waaye ministre bi ñu dénk wàllum jàng meeg njàngale mi mi ngi leen di àttu. artu na leen muy dànkaafu goo xamante ni kon gouvernement bi kon euh, nee na rek dina def kémtulaay kàttanam ba yoon moom ñu mën ko respecte ngir képp ku jukk ngir euh, yàq école bi euh, motif yoo xamante ni déggoo ko ci yoon ñu mën a jaamaarloo ko yow ndax école morte moom décret par décrété ak syndicat yi ñoom ñoo ko def loolu nag ministère bu éducation nationale nee na grève déguisée lañ ko mën a tuddee maanaam làqatu ci lu ni mel ngir grève te bala ngaa dem grève am na yoon woo xamante ni fa nga war a jaar comme ni ko constitution bi ak loi yi mën a waxee fii ci Sénégal nee na daal munuñu sax euh, liberté euh, travail bi nga xamante ne bëggoon nañu ko salfaañee te boo xoolee sax boobee communiqué nee na alinéa 7 8 bu article 7 loi 61 33 bu 15 juin 1961 ñëw na kon ci statut général fonctionnaire ni ñu ko modifié wax na kon kuy dem grève wala yu ni mel boo koy def yoon wi nga war a jaar lu ko moy nag gouvernement bi mi ngi xam ne ne kon am na droit daal ñëwaat ci lim tuddee rek engagement yi si ñëwoon ak boobee yooyee syndicat te yooyu engagement sax nee na dem na ba ci deux cent cinquante milliards de francs CFA yoo xamante ni contribuable Sénégal ñoo ko fay donc kenn ci parti yi bu dee violé na ko rek kon moom gouvernement bi dina ci dellusiwaat fële ca Mbàkke moom lañ fa nekk moom mooy ak sax euh, ay euh, élèves ñoom ñoo doon amal ak euh, ab ñaxtu li ni métti nag mooy ak tamit annulation acte d' état civil nga xamante ni dañ koy gis rek ci moom mais diwaan te lan fa nemmeeku mooy ngir jot ca maanaam kayitu judd ya métti na leen rawatina liñ fi dund fan yëpp ji grève yi nga xamante day am ba tax na kon ñu ko doon métti lu Pape Balla Gueye Talla Sambo. ñu def benn say askan wi yeewoo Mbàkke ak yëpp ñi ay ndongo daal di bootu ci collectif bi ñu naan état civil ñoom ñëpp ñoo daal di ñaawlu annulation acte de naissance yi nga xamante ne ay jafe-jafe rek la leen di jural Serigne May Seck njiital. waaw naata mi ngi noonu kon euh, di jégalu ci qualité bi den ci ñëwaat ci euh, nam gën a yaatoo muy li nga xamante ne kon lu am solo la di mbiram kayitu judd yi hmm, am na solo kay merci beaucoup euh, Chérif ci xibaar yi jeex na wala ah, làmb ji <laughs> dama nga nga <laughs> gunge ngay naax léegi ma waroon a puus kat nga toog di concentré woo <laughs> Modou Lo garde li nga xamante ne kon moo mooy roi des arènes démb nag comme ni ngeen ko gisee moom moo daan Ama Baldé ca arène nationale muy combat royal ngeen seetaan ko ci TFM euh, mi ngi noonu kon euh, daanaka lu yées ab simili ci la moom mii di Modou Lo rëppeelal euh, jot na ko joor nag ay maajeel yi laata kon ñu dem ca VAR ba bën delsee kon arbitre bi daan ne kon Modou moo daan moom Modou moomu ba mu demee waaw mi ngi noonu kon mën na nañoo gunge gars yi sax bon seetaanaat ko ndax waaw mi ngi noonu egg na ca suuf jëm naa bot nag moom Ama Baldé bot bi eggut ban génn ci saako yi gis nga Modou waaw def quatre appuis yooyu. moo doon waaw mu ngi noonu nag ban demee ca VAR boobu dellusiwaat kon ci la arbitre bi jox victoire bi kii di Modou Lo Modou Lo ba mu ñëwee ci parcelle nag mbooloo mu takku moo ko fa tertu ay fansam békk ci victoire bi nga xamante ne am na ko ñu ànd ceeg Ablaye Diop ak Amadou Ba. yaa ngi jóge fu nekk supporter ni Modou mooy ñëw supporter yaa ngi jóge fu nekk Modou xarañ loo Modou xarañ loo la voilà. Modou Xarañ Lo le champion le roi des arènes le voilà l'étoile de Parcelles Assainies gëj na bëri lool gëj na bëre mais tey mu bëre lambu yëngatu Sénégal yëpp yëngatu lu waral lool waaw waaw daa de bay ga rek Modou moom ku ne xam na ne Modou national la ala accu moom fa mu daan dóor rek fa lay dóor waa Ama dal dafa daf ko tëkku woon ne ko jaraloo ma sax mille francs bu dem démb doon tey su ma xamoon ne ni nga toll du def ci yow mille francs waaye tey xam na nan la ak naka la. waaw ah, bettu ñu de franchement bettu ñu xamoon nañu Modou Lo moom bu ñëwee dina dóor Ama Baldé dina ko daanu. lan moo ci gën a neex ci combat bi. ci combat bi ni mu ko daane ba yëg ci kawam loolu moo loolu rek moo ma ci neex. tànn ñuy leen di sant di leen gërëm. di rafetlu nekk dëkkandoo Modou Lo. ñuy dëkkandoo di taataam di yaayam man Louga laa jóge ñëw supporté si ko. ndax sama xaritu dooma te ci kër gi la yaroo muy xale bu baax bu yaru bu teey te boolewul daraa ki wax. sama xol dafa sedd ba mënumaa wax ndax Modou dafa nekk suñu doom joo xam ne doom ju baax la gore lool di ànd suñu doom baax lool gore. ndax lii du fi gan lii moom luñ mën la. ñu préparé woon la it te luñ doon xaar la euh, Modou nag euh, ñun ñoo ko yar fii ci koñ bi mu nekk euh, xale boo xam ne xale bu neex a dëggal la ku am yar ku mën a maye cër. soxna naata mi ngi doon kon waa mhm. parcelle jàpp leen ñaari weer rek ngeen di couronne bi ndax Pikine dina ko nangu si waat ndax booy ñaa war naa bëri ak. le premier janvier le premier la. yow soxoro <laughs> bàyyil ba ñu egg ci incha allah ngay door a wax. <laughs> gaaw leen profité ci moor yéen waa parcelle li ngeen di ngeen xàppi <laughs> merci merci beaucoup ci yaatalu xibaar yi ci kanam bu leen fàttee jàngat bi ak El Hadj Daouda Mine et puis suñu gan mu Ndiaye siisee bokk ci euh, mbootaay bi ëmb organisation société civile ngir ay élection euh, ci réew mi ci kanam tuuti la ñuy ànd ak moom ci waxtaan bi léegi ñu yëraat yëglekaay yi li ñu xëyee tey ci altine bi